cim euh, réew mi euh, ci lool yi nag euh, daal di ñu ñaax nguur gi maanaam rek oc di Gambia government ngir rek jaaree ko ci bànqaas yi nguur gi yor rek wàllu alam bi mu ministry of environment ngir rek loi yi nga xam ne teg nañ ko ci wàllu alam bi maanaam environmental laws ak yi nga xam ne mooy conviction yi ñu doon loo xam ne nag des koy daal di nag tàmbali doxal di ko jëfee boobule nag moosoon ki ko tegoon ci taabal ji di Seexu Jàllo di rek membre bu Lowa Euh, yenn yi nga xam ne rek mooy régulations yi nga xam ne dañ koy faral di teg dafay nekk ci rek këyit yi kese waaye nag bu ñu toll ci wàllu jëfe gi duñuy gis loolee ñoom nag ci lu ñu wax rek mooy ko ci banqaas yi nguur gi nga xam ne nag moo yor wàllu alam bi muy ministry of environment euh, ñu tàmbale nag doxal yooyu le nag loi euh, nag lañ ko daal di xamale lu jëm nag ci li nga xam ne mooy wàllu pollution deforestation ak yeneen yoo xam ne rek des koy faral di dund ci alam bi te koy waral bokk na ci li nga xam ne rek mooy askan wi ci yu ñuy def ñu ngi woo euh, li nga xam ne moo di nguur gi jaaree ko ci banqaas gi euh, jiite euh, wàllu woowi ngir rek luwaa yooyu ñu teg ci wàll wi ñu daal di koy tàmbali di doxal. mi ngoog lu askan wi di jooy mooy ci ab Gambia am nañ ay loi loo lépp loo fi gis loo xam ne àndul ak yoon rek am na loi bu ko dàq am na yi daan yuñ ci teg waaye daanaka lu toll ci enforcement bi maanaam doxal ko mooy doon jafe-jafe gi. waaw li wax mooy dégg euh, boo xoolee teelare teere réew mi amut benn charte boo xam ne jàll na ko bàyyiwul dara surtout ci li nga xam ne mooy lor nit ñi walla mooy loraate te suñ dëkkuwaay lu am solo la bu ñu ko seetaanee bàyyi luwaay nelaw ñu bàyyi nit ñi euh, ñu toppa lu leen neex ñu def ko loraange bi ñun ñëpp lay dal parce que soo ñëwee tey euh, ñu ngi ko gis lu bari soo ñëwee ci wàllu nawet bi même noor la tàngoor seddaay yi yëpp suñ dëkkuwaay yi li ci nekka ci sàmm ko defar ko euh, daf ñoo jural njëriñ bu bari suñ bàyyi nit ñi def ci lu leen neex loraange bi kenn du ci war a mun a rëcc hmm. kon yelleef la axala ci nit ñi pour lu war ñu def ko mun aar muy mun a aar dëkkuwaay bi lii waruñ ko oyofal waruta doon loo xam ne euh, dañ koo xeeb xeeb ci anam bi nga xam ne mooy lu fa nekk du ñu itteel ñu bàyyi ko doxi suñ soxla waaye léegi-léegi ñun mi fa nekk ñun yaaxa lañ ko mun a gisee ngir dëppawut ak luwaa ay xaalis lañ cee dugal di ko neexalee ay nit wala ay ñoo xam ne ñoo jiite béréb yooyu ba tax na ñu leen di bàyyi ñuy def yoo xam ne dafaa jur kon luwaa bi nañ ko gën a seetaat yaatal ko même ñi nga xam ne ñooy may wala di dooleel ñeneen ñuy def bunta yooyu ñu am luñ leen ci tuuma ñoom tam su boobaa da ngaa gis ne ñoom mi ko jiitee dinañ jël seen matuwaay. mi ngoog euh, ñu wax euh, ci leneen sax euh, wala bile ponk moo ñu yóbbu break bu ñu dellusiwaatee wéyal xibaar yi.